lii ma lay wax nii soo xëyee nga wax ko yàlla dina la booleeg soixante-dix mille malaaka yu lay ñaanal ba keroog ngay dellu si kër gi booy waxaab li nga wax nii am na solo de waa gis nga ñun de chaque jour dañuy jéem a wax lu am solo bref mais li nga wax nii su bëggee am lan laay wax ba soo xëyee da ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim nga teg si ñetti aaya ci saar bi ñuy wax suuratul xashri lii de moom vraiment méttiwul mais est-ce que hadis bi wér na xadis bi nii moo tudd xadis garib lan mooy garib garib mooy xadis boo xamante ne ci kenn kese lañ ko jëlee mais nag del def lii ma la wax bul ko bàyyi su fekkee abonné goo nga abonné aussi tamit nga zëm vidéo bi